salaamaaleykum mbokk internet di ñu ngi di jaajëfal bu baax a baax baax a baax ngeen ñëwati seen émission pouvoir d'achat si euh, dakar info point net ñu dalal si euh, le professeur euh, Thierno Thioune di docteur en sciences économiques nekk maître de conférence titulaire nekk également tam directeur des études du euh, CREFDES euh, foofu si université euh, Cheikh Anta Diop bu Dakar ñuy jaajëfal ñi nga xam ñu ngi xaar émission bi saa su ne ñuy wax wàllum économie tey nag li ñuy waxtaanee muy wàllum Afrique ak Sénégal lu tax ba tey mënuñoo dem wala décoller ba tax mu indi jur. li nga xam moom mooy immigration clandestine gis ngeen ko Libye ak feneen ak feneen waaye li ko gën a tax a jóg moom mooy discours bi nga xam ne président ghanéen bi jox na ko li nga xam ne moom mooy nag euh, Occident Occident tey moo xam président France ak ñeneen ñi nga xam ne vraiment mooy borom doole yi wax na leen ko ni Afrique war na jóg demal demal boppam yenn solution tey lay leer ak ki xam mooy le professeur Thierno Thioune euh, docteur maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax namoon naa la. mais maxu maa la euh, raw. Euh, di kontaan lool di dellu siwaat euh, si émission si émission bu am solo bi di pouvoir d'achat tey nag nga yëkkati euh, laaj bu bu bu am solo boo xam ni non seulement dafa war a intéressé ñi nga xam ni ñoo yor suñu dëkk yi di ko doxal mhm. waaye nag génération yi di ñëw ndax wax nga ko lu tax Afrique wala Sénégal ba léegi demul waaye nag après nag loolu lañ la si ñun ñun ñun ndaw yi tey war a taxawee mhm. donc bëggaat naa lool très sincèrement di dellu siwaat euh, si sa émission bu am solo bi nga xam ni lu soxal rek euh, Sénégal lu soxal Afrique la ñuy waxtaanee te dina amal njëriñ ñëpp si yaakaar démb moo waral ñu naan tey euh, ndax tamit xëy na war na ñuy fàtte waaye jar naa fàttaliku mhm. li tax ma wax loolu moom mooy 60 ans yi nga xam jot ñu ñu koo dund mhm. boobu ba tey ba ñu am indépendance ba léegi ñu jéem a demal suñu bopp demuñu mën nga ñëw si 60 ans si 60 ans yooyu jërëjëf Makhou ban jàngat nga ci am jërëjëf Makhou euh, euh, Afrique mm, bi nga xam ni Sénégal ci la nekk boo ko xoolee dëkkam yi ñu ngi toll ci juróom fukki état ak ñeet mhm. euh, boo xoolee ñoom ñëpp dañoo leen a coloniser woon donc boo rombee sax dem ba ca kaw bu ñu convoqué histoire dañoo njëkk a dund li ñu naan esclavage ba pare ñu teg ci colonisation donc ay siècle euh, Afrique dafa daan liggéey pour ñeneen ñi donc 60 ans yi mooy 60 ans yi nga xam ni moom la ñuy woowe li ñuy at yi ni moomee suñu bopp nga xam ne ñooy doxal di jëf pour suñu bopp waaye nag ñu seetlu si ne 60 ans yooyu boobu ba léegi ñun dafa mel ni dañoo tagga mhm. demuñu dikkuñu ndax 60 ans dañ ko bokkal ak ñeneen ay dëkk yu mel ni Singapour ñu leen di waat wooy les quatre dragons mhm. Singapour euh, ay ñoom Corée mhm. ainsi de suite boo ko xoolee ñooñu bi ñu jël indépendance 60 ans yooyu ñoo woon li ñu naan PIB si mm. économie mooy bu ñu xaymaa suñu mm. koom ñoo ko tolloo woon am mm. nañu sax ñoo xam ni ñoo leen rawoon mm-hmm. ñoo leen rawoon tane leen woon ndax dëgg la bi ñu colonisé bi tubaab bi di dem amoon na au moins lu ñu bàyyi loon te ñoom amuñu ko woon. Mm-hmm. mu mel ni kon euh, boobu ba léegi muy 60 ans yi ñun yokkuwuñu euh, mun naa wax sax dañoo wàññeeku euh, ñu ne nag léegi. lu tax lan moo waral loolu lu tax parce que damay sama sama laaj dafay nekk mm-hmm. est-ce que du dañu dañu joxe baat xamuroo ci làmmiñ ni ko wolof di waxee tey est-ce que tubaab bi dem na. c'est-à-dire jox nañu suñu indépendance mais est-ce que am nañu indépendance. waaw dëgg la loolu nag dina xaw a tey xel ñu bari ndax dañ naan. Mhm. dafa mel ni moomuñu suñu bopp dëgg-dëgg. ba léegi mhm. mel na ni nee nañ ñu waaw jël leen seen indépendance ci wax ji. <laughs> waaye ci doxalin dëkk bi ci wàllu koom bi dafa mel ni ba léegi moomuñu suñu bopp ndax dafa bari ay euh, lu xaw a ay teexel boo xoolee liy def dëkk économiquement mu am doole mhm. mooy. Euh, liy doxal dëkk bi borom dëkk bu ñi dëkk si dëkk bi ñoo ko war a moom même bu dee ay bor yoo xam ne dañ koy waaye waa borom dëkk bi ñi dëkk si dëkk bi ñoo war a constituer bor yi pour dëkk bi li ngi la fay jur ci koom mu mën a desaat si dëkk bi mhm. waaye boo ko xoolee dëkk yi ngay jël yépp yi nga xam ne am nañ indépendance boobu ba léegi lay doxal dëkk ba daanaka nationaux yi moomuñu ko ba tax na kon day mel ni kon indépendance boo xam ni la am nañ ko ci drapeau yéeg maanaam ci hymne yéeg ci turu dëkk bi. Mhm. waaye ca doxalin ba yaakaar naa ni amaguñu coup de France yooyu. Mhm. pour ñu permettre nag ñu mën a doxal dëgg dëgg dëgg ñun suñu vision am suñu décision am suñuy courage yoo xam ne dañ ko mën a teg pour suñu dëkk mën a dem. et en parlant de courage 60 ans yi ñëw wala bokk yi ñuy bàyyeeg suñu doom yeeg suñu sët yi ba si sëtaat bi euh, ban ban jàngat cest à tey jii ban orientation ngay jox africains yi. man man damay damay wax ci loolu ne. Euh, perdre nañ trois cents ans d'esclavage teg ci soixante ans yoo xam ne indépendance yoo xam ne entre guillemets entre guillemets man mhm. perte laa ko tudd mhm. euh, ndax euh, en terme de temps da ngay xool euh, ñàkk ñàkk la si ci wàllu bépp ndax boobu ba léegi dëgg la ñu ngi jéem a yokk koom yooyu waaye li ñuy réere mbir mooy nit ñi tamit dañuy yokk mhm. bu koom di yokkoo nit ñi di yokk donc bu koom bi yokkee ñooy seddoo day yokk mhm. donc tax na ba gis naa ni daal 60 ans yi ba ñu ko defee ba léegi euh, am na yu jéego yoo xam ne dañ ko waroon d'ailleurs bu ñu waroon def benn ñaar la ñu waroon a def ndax nit ñi dañuy yokk te dañ ko war a dawaatu mhm. ba tax na kon euh, lii taxaw léegi mooy est-ce que ñun ndax dafa am benn bindkat bu mag bu doon wax ne génération bu nekk da nga am sa mission soit da ngay nangu nga remplir ko mhm. wala nga trahir ko léegi nag ñun def nañ ba 60 ans yi moins lu ñu ci am mooy nit ñi jàng nañ foo dem Séné si àdduna bi muy sénégalais muy africain mhm. ñu mag ñoo fa toog di doxal dëkk bi mhm. di doxal àdduna ñu ne léegi comme que nag toll nañ foofu ci wàllu xam-xam mhm. est-ce que léegi dañuy continuer di nangu lañ doon nangu wala nag dañoo war a taxaw nag ñun doomi Afrique doomi Sénégal taxaw nag léegi jël nag suñu destin en main ne léegi ñun ñooy doxal suñu wàllu koomu bopp ñooy xool suñuy vision def ko ndax buñ ko defulee maanaam dañu leen toogaat encore cent ans la Senghor doon wax naan l'an 2000 <laughs> Dakar sera comme Paris mhm. mais tey tamit ñu ngi wax émergence 2035 <laughs> est-ce que duñ toogaat ne est-ce que 2035 dana mel ndax liñ doon wax léegi donc euh, loolu lu amoo solo loo xam ni war nañ taxaw di ko xool ndax sinon rek mhm. temps bu ñuy perdraat rek recommencement lay doonaat éternel recommencement lay doonaat. est-ce que am nañu ressources yooyu yi nga xam tey jii mën nañ permettre yow li ngay wax nii ñu mën ko am mais mais ressource boo koy xool ci àdduna Afrique daanaka moo boo ko xaajoon xaaj ñeenti xaaj. Mhm. Afrique yor benn bi. Mhm. gis nga lépp luy ressource nag muy or jamaa petrole mhm. euh, ressource bu nekk rek di ferñeent bu nekk si suuf rek. boo jëloon àdduna nga xaaj ko ñeent. Afrique moo yor moo yor benn bi. te gis nga yeneen yeneen continent yi ñun li ñu yor jegewuñ ko sax. te boo xoolee ñoom ñoo ñu gën a. ak ressources humaines bi. mais ressources humaines bi. boole ci ñoo dolli ko si. Mm-hmm. muy lu am solo. muy nit ñi ndax bu njëkk ba amuñu ko woon. amuñu ko amuñu ko woon ndax mm-hmm. xale. Euh, mooy mooy énergie mooy doole ndax dëkk yépp li ñuy rawantee mm-hmm. mooy dañoo am jeunesse bu formé wu bu bu bu bu bu bu dëgër bu xam fi mu jëm bi bu am courage mais aussi bu am vision mais boo xoolee yeneen dëkk yi ñoom amuñu sax ressource yooyu maanaam jeunesse beeg yooyu te pourtant seen économie ngi dem boo jëlee lu mel ni Europe. Mhm. ñoom d'ailleurs sax dañoo am vieillissement de la population. te pourtant ñu ngi góorgóorlu. Mhm. mais ñun ñu am population bi nga xam ni boo jëlee moyen d'âge médiane. Mhm. ñu ngi tollu si dix-neuf ans. te Europe mi ngi jol toll ci trente-quatre ans donc gis nga ñun suñu jeunesse fu mu toll suñu diggu doole lañ nekk. mais nag. jeunesse yi dañ ko fi dañ ko dañ ko utiliser wul ndax joxuñu leen espoir. Mhm. boo xam ne danañ ko toogee si dëkk bi. joxuñu leen nga toog mhm. waaw teg si joxuñu leen espoir maxu. si ñàkk espoir boobu moo tax. Mhm. tamit ñu ñëw parce que looloo indi immigration clandestine bi. mais dëgg la. parce que ñàkk espoir la. mais dëgg la ndax immigration mun nañ ko wax sax ne mën na doon loolu ndax euh, condition pré boo xam ne la bu nécessaire la. boo xam ne dana mel ni loolu mais immigration lu yàgg la. ndax nit. ak immigration ñoo ànd àdduna ba muy àdduna ba léegi la nature humaine moo ànd ak dem ak dikk ndax nit moom fu nga xam ne rek fa la yaakaar ne taw féexam a xéwala ma nga fa foofu lay jokk di fa jéem a ba tax na immigration bu ñu koy fàttali yàgg na am ci àdduna ba léegi sax am na fi ndax bu ñuy xool sax très loin dans l'histoire irlandais yeeg italiens yi dañ fi daan jugee di dem di def immigration si pays yu may ni Amérique yooyu. Mhm. boobu seen dëkk demul noonu waaye seetlu nga ne léegi. dematuñ fen ña nga toog seen dëkk ndax seen dëkk naat na. mu mel ni ba léegi tamit boo xoolee Canada tey. Mhm. terre d'immigration la européen yeeg ñëpp a fay dem. Mhm. donc mu mel ni donc immigration lu yàgg am la ndax nit ñi dañuy dem seeti rek seen tawféex ak seen xéwal fu mu gën a nekk waaye. li ko war a li booy olof daan danaan booy dem booy rootaani rek sa dëkk dafa neexul mais Afrique at mu mel ni Sénégal. boo gisee xale yi di jóg di fupp di jaar si saara désert bu métti bi di jaar si di gaa jël gaalu looco yi di jaar si Méditerranée bi di braver maanaam climat bi euh, euh, nu mu tuddati euh, rudeur climat bi di dem di wuti ji Europe c'est parce que dañoo amatul espoir seen dëkk te espoir nag li koy def mooy système politique yu baax yu am doole dirigeant yu am leadership am vision mën a téye seen ndaw yi nga xam ne ñooy doole dëkk adduna jox leen nag maanaam ay jumtukaay ay outils yoo xam ni ñoom ñooy toog nag relever défi bi mën a doxal dëkk ndax bu ñu ko defulee. Mhm. bu doom xale yi demee euh, ñi am doole dem maanaam mag ñeeg jigéen ñi rek fi nekk donc dëkk bi duñ ko mën a defal donc ñun politique bi ñu war a def mooy politique boo xam ni dañuy jox espoir suñuy mhm. ndaw mhm. ñu toog si dëkk bi xam ne. Euh, dëkk bi ñoo ñoo koy defar keneen di jugee jégaane feneen ñëw di ko defar. Mm. te loolu mais est-ce que loolu dina yomb ak euh, tey yarwaan gi su yalwaan gi laa ko mën a wax ndax tamit dañu dépendant trop euh, si France si si si si si fépp États-Unis Europe sax laay wax wala États-Unis donc est-ce que loolu tamit jotul ñu ñu taxaw yow ban jàngat nga am boobu ba léegi 60 ans ñuy ñu ñuy tàllal loxo wala boog xëy na tubaab buy ndee bu la joxee fii fukk. rocci eh, ñett eh, eh, juróom fukk wala wala wala wala fanweer ban jàngal nga ci am. mais mais loolu dafa war a dakk mhm. ndax buñ ko seetloo depuis 60 ans yi aide publique au développement dafa dafa dafa dafa dafa dafa jëriñul dara. Mhm. deful dara ndax mënoo bugg financer sa santé. Mhm. ak sa économie ak compte xaalisu contribuable français euh, euh, italien wala dafa dul dem gis nga liy financer sa éducation. liy financer sa santé nga xam ne ñooy sookul dëkk ñuy waa économie dafa war a jugee si sa biir dëkk maanaam euh, munoo jël par exemple nga ne tey hôpital bi France France ñoo koy ñëw di ko finance déedéet loolu mënta dem ndax euh, nit ku boo buggee moom sa bopp dëgg dëgg dëgg maanaam lay nekk sa dëkk yaa koy doxal dëgg la nag France euh, moo ñu yàgg coloniser mm-hmm. waaye nag fippu dafa jot nag taxawaat redéfinir coopération yi te maa ngi ko doon wax récemment at euh, ñëw Macron bi. Mhm. mais boo xoolee France nga xam ni moom dama koy yàgg tout ndax moo nekkoon suñu ancien pays colonisateur. Mhm. boo ko xoolee maanaam moom mooy suñu mooy premier pays partenaire u Sénégal. seen jokkalante ñoom ñaar mu ngi toll si cinq cent cinquante milliards. Mhm. waaye cinq cinquante milliards yi daanaka. ay quelques pour cent rek ñun lañ siy jël di yóbbu France muy koom bu dugg suñu kër. lépp France koy jëlaat. malheureusement mu mel ni investissement yi am Sénégal. Mm-hmm. investissement direct étranger yi stock bi boo ko jëlee France am na ci 88 pour cent. nga xool entreprise yi nekk Sénégal ñu ngi toll si téeméer ñoom rek seen i emploi ñu ngi si 12000 donc dafa mel ni euh, France moo yor vitalité économique u Sénégal ndax ñoom ñooy def quart du PIB at de recettes fiscales. donc mu mel ni kon ba léegi li nga doon wax sa laaj bu njëkk bi naan mhm. est-ce que dëgg-dëgg moom sa bopp gi leer na mais dafa mel ni kon ñun daggaguñu ba léegi mbuum buumu buum bi ñu liyee at at ñooñu daggaguñu ko daggaguñu ko dama bëgg après ñu setaan élément bi nga xam ni euh, président ghanéen bi def na ko c'est-à-dire discours boobu dafa may fàttali ba euh, euh, Thomas Sankara doon wax ak président France bi mu mel ni après gis li si xew Macron mu ngi taxaw Euh, président ghanéen bi mi ngi def discours xool leen euh, mais mi ngi il est quasiment absent sax wala mi ngi mel luy tëkku sax euh, parce que geste dafay wax pour ñun ñu xam communication xam en tout cas jàngat boobu nañ ko seetaan ñu dellu si waat J'espère que les commentaires que je m'apprête à formuler ne vont pas trop vous offenser ni offusquer les personnes présentes ici. pense qu'il y a une erreur fondamentale de la manière dont le sujet est énoncé. Nous ne pouvons plus continuer à mener une politique, pour nous, dans notre pays, dans notre région, sur notre continent, basée sur l'aide apportée par les Occidentaux, ou la France, l'Europe, l'Union européenne. Cela ne marche pas, ça n'a pas fonctionné, et ça ne fonctionnera pas. Il est de notre responsabilité de trouver une méthode qui nous donnerait les moyens de développer nos pays par nous-mêmes. Mais il n'est pas normal qu'un pays comme le Ghana, 60 ans après son indépendance, financé sur la base de la générosité et de la charité des contribuables européens, À l'heure actuelle, nous devrions être en mesure de financer nos besoins ah, élémentaires nous-mêmes si nous concevons les 60 années à venir comme une période de transition. Une période dans laquelle nous nous assumerons pleinement, notre approche ne doit plus être de compter sur ce que le contribuable français devient, nous donner le... Leur aide est la et appréciée quel que soit le soutien apporté par le contribuable français à travers son gouvernement. Elle est appréciée à cheval donné. On ne regarde pas les dons. Et ce continent, avec tout ce qu'il a subi, et toujours à ce jour, celui qui détient moins 30% de toutes ressources naturelles les plus importantes du monde, c'est un continent doté de vastes terres cultivables et fertiles. Il regroupe la population la plus jeune au monde, constitue une réelle source d'énergie et dynamisme. On le voit uh, de tant de résilience et d'ingéniosité pour traverser le Sahara. en trouvant le moyen de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune. Cette énergie-là, nous voulons que cette énergie se déploie à l'intérieur de nos pays et nous réussirons à capitaliser sur cette énergie si nous commençons à mettre en place des systèmes qui montrent à nos jeunes qu'il y a de l'espoir et des opportunités ici chez nous. nous les migrations et les mouvements de population. Cela a été parfois présenté comme un phénomène nouveau. Il n'y a rien d'original là-dedans. C'est aussi vieux que le monde et cela a toujours eu la même cause, l'échec de l'endroit où vous êtes à vous fournir une opportunité, donc vous allez chercher ailleurs. Ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire de l'Europe au XIXe siècle savent que les grandes vagues L'immigration en Europe au XIXe siècle provenait de l'Italie et de l'Irlande des vagues, et des vagues successives d'Italiens et d'Irlandais ont quitté leur pays pour trouver l'Eldorado américain. parce que l'Irlande ne proposait pas d'opportunité, ni l'Italie aujourd'hui. Vous n'en entendez plus parler, les jeunes Italiens sont en Italie, les jeunes Irlandais sont en Irlande, nous voulons que les jeunes Africains restent en Afrique. Pour ce faire, euh, nous, nous devons abandonner cette mentalité d'assister, cette mentalité qui nous pousse à toujours nous demander ce que la France peut faire pour nous. La ce qu'il faut pour son propre intérêt et quand cela coïncide avec le nôtre, tant mieux comme disent les Français. mais notre principale responsabilité en tant que leaders et citoyens africains est de réfléchir à ce qu'il est nécessaire de faire pour développer nos pays, de se doter d'institutions qui fonctionnent et nous permettent d'avoir des gouvernements opérationnels et responsables, s'assurer que les fonds mis à la disposition des gouvernements soient utilisés dans l'intérêt du peuple et non de ceux qui gouvernent. Il nous faut des systèmes qui prônent la responsabilité qui prône la diversité, qui donne la possibilité au peuple de s'exprimer librement et de contribuer. Et en respectant la volonté du peuple et le respect de ses intérêts, notre préoccupation devrait consister à nous demander ce que nous devons faire au cours de ce 21e siècle pour écarter l'Afrique de cet état de mendicité et de dépendance. for aid, for charity, for handouts. Le continent africain, lorsque vous regardez ses ressources, c'est lui qui devrait faire des dons aux autres pays. Nous avons beaucoup de richesses sur le continent, même ici au Ghana, et nous devons adopter une nouvelle mentalité qui dit que nous pouvons Y arriver. D'autres Y sont parvenus, nous pouvons aussi le faire et fois que nous aurons cet état d'esprit, nous verrons son côté libérateur pour nous-mêmes. Nous continuons de parler de comment les Coréens, les Malaisiens, les Singapouriens qui ont obtenu leurs indépendances dans la même période que nous nous savons qu'au début des indépendances, le PIB par habitant du Ghana était supérieur à celui de la Corée, mais aujourd'hui, la Corée fait partie des premiers de ce monde. tout comme la Malaisie, tout comme le Singapour. Que s'est-il passé Pourquoi ont-ils réussi cette transition alors que 60 ans après les indépendances, nous sommes là où nous sommes Ce sont là des problèmes qui devraient tous nous préoccuper en tant qu'Africains, en tant que Ghanéens et je dis ceci avec tout le respect que je dois au président français, et malgré le fait que la coopération avec la France soit quelque chose qui m'importe beaucoup, Mais je parle de notre autopropulsion, ce que nous avons besoin de faire afin de faire avancer nos pays, et donc de créer les conditions qui permettraient à nos jeunes d'oublier cet effort hasardeux, qu'est celui de vouloir se rendre en Europe. Ils n'y vont pas parce qu'ils en ont envie, ils y vont parce qu'ils ne pensent plus avoir d'opportunités dans nos pays. C'est donc sur quoi nous devrions nous concentrer et je crois que si nous changeons cet état d'esprit, cet état d'esprit de dépendance, cet état d'esprit qui est contingent d'aide de charité, Nous verrons que dans les décennies qui viennent, la totale floraison du peuple africain adviendra, et cette nouvelle personnalité africaine, dont on parle depuis les indépendances, sera réelle et imminente de notre temps. J'espère ne pas avoir vexé le questionneur peut-être même certains de mes amis ici présents, mais c'est là quoi je crois profondément, et c'est également la raison pour laquelle j'ai adopté comme slogan pour ma présidence à la tête du waaw gannaaw bi ngeen ko seetaanee gis ngeen voilà donc mi ngi noonu sans commentaire léegi li ma bëgg li ma bëgg mooy que est-ce que tey jii Afrique wala Sénégal mën na am espoir tey je dirais pas renaître mais bokk ñu développer cest à jii développement wala est-ce que koy dégg rek wala mën na nekk. mais dëgg la Afrique am na espoir bu rëy ndax Afrique mooy avenir mooy continent de l'avenir lu tax ma koy wax mooy boo jëlee Afrique. Euh, moo moom mu ngi bu ñu nangu woon rek booloo. Mm-hmm. Afrique mu ngi si 3 millions de kilomètres carrés. c' est 20 pour cent des terres émergées terres yi nga xam ne ñu ngi am. Mm-hmm. boo ko xoolee Afrique euh, bu ñu booloo woon rek dinañ def ñetti yoon Europe ñetti yoon superficie Europe. 54 états yi bu ñu nangoon doon benn. Mm-hmm. si en terme de ressources laa lay wax danañ nekk ñetti yoon Europe. boo ko xoolee aussi bu ñu booloo woon dañuy nekk 1 milliard 200 millions te loolu marché bu rëy comme comme États-Unis. bien. donc boo ko xoolee euh, dañoo nanguwutu doon benn bu doonoon benn boole suñuy ressources ah Afrique yaa ngi ñu koy wax léegi mu ngi 30 pour cent des ressources naturelles n'est-ce pas yu mm-hmm. monde bi donc bu ñu boolee force de frappe boobu maanaam du xaj fenn. mais loolu dina jafe Maghreb Afrique centrale Afrique de l'Ouest Afrique du Sud cest à tey loolu euh, est-ce que dina naka la ñu mën a procéder. ba loolu di ñëw xam nga ah, États-Unis joguñu rek cinquante quatre wala cinquante deux états yi ñëw c'est-à-dire am na ñoo xam dañu commencé dañu dañu commencé ñeneen di leen si fekk si fekk ba mu ba tey fan nga amee espoir ni Afrique mën na mën naa démarrer si loolu bokk. mais mais espoir bi ma ci am rek gis naa ne récemment. Mm-hmm. Mm-hmm. jël nañ président boo xam ni. Mm-hmm. damay saluer courage am ndax damaa gis li mu def si dëkka muy Paul Kagame. ñu jël ko jox ko président. Union africaine. te ñu gis la mu def ci dëkkam te dëkkam génn ci guerre civile yàggul. waaw daal di def bon yu mag bokk ci pays yi nga xam ni si 30 yi yu ñu mujjee. Mhm. mooy bon bi gën a avancé yu mu def. donc gis naa ñu jox ko te mu am na leadership bi. te loolu la Afrique manqué woon moom la soxla leadership bi te yaa ngi koy tudd léegi président ghanéen boobu. Mhm. Euh, boo xoolee leadership bu mu waxee ne ñoom soxlatuñu tàllal loxo France dañoo soxla léegi utiliser seen bopp. pour mën a demal seen bopp ndax terme yi sax su ma ko utiliser mooy voler de leur propre zèle ah te loolu dafa am solo ndax bu ñu ko deful rek dëkk yi ñuy France ak muy Europe ak yëpp Amérique seen i intérêt dégg nga euh, président bu mag dafa woo doon wax ne mhm. dëkk yi amuñu xarit ay intérêt lañu am donc ñoom bu ñu la indilee benn rek mhm. ñu ngay jéem a wut ñaar mhm. donc ñun nag ñoo war a yeewu def leadership bi te man gis naa ko ci Paul Kagame miy jiite les UEA UEA Union africaine buñ bu président yi xawee rek Euh, nu mu tuddati bloc autour de lui gëm naa ni Afrique war na mën a décoller aussi aussi jeunesse bi conscientiser wu xam ne ñun ñoo war a mën a defar suñu continent defar suñu dëkk ndax dëkk ndax euh, euh, société boo gis dafa am phase yu muy jaar bu jugee ci société traditionnelle mhm. dafay te société traditionnelle mooy këyat ak Euh, bay moo xam ne bay rudimentaire la rek at bañ a nangu progrès donc foofu yaakaar naa romb nañ ko mu ñu jógee si loolu dafa am nag préalable yoo xam ni mu la ñuy wax préalable au décollage préalable au décollage yooyu nag dafa am dëkk yi nekk si biir Afrique yoo xam ne dañ ko mataleegul te préalable au décollage yooyu li si am solo tam am solo mooy li nga gën a xam mooy yokk niveau de vie yi te boo yokk niveau de vie mooy da war a yokk maanaam investissement yi ndax buñ ko deful rek Euh, dafa am phase juróomi phase yooyu ma doon wax yoo xam ni si lañ war a jaar tant que jaaruñu si mun nañu wax émergence mun nañu wax luñu duñ mës a egg si décollage bi nga doon wax donc mooy romb nañ société traditionnelle def nañ euh, condition préalable au décollage maintenant nag phase li ñu naan take off take off en anglais mooy décoller mhm. foofu lañ tagga témbe nag te loolu li si njëkk mooy leadership après nag garder ses ressources telles que la jeunesse. loolu foog nga am mm. élan pour décoller. et en parlant d'élan loolu foofu la ñuy terminer monnaie unique bi est-ce que est-ce que sans monnaie unique système dina possible. mais gis nga euh, monnaie dafa nekk souveraineté bu dul dara sax yëfu souveraineté la dëkk économie buy dem day ànd ak monnaie. monnaie dëgg la franc fa ñu ngi koy kañ ci ay avantages am waaye nag war nañ ko réformer te man loolu laa gëm te yàgg naa ko wax. réformer système franc CFA bi ndax clause dafa yàgg clause yu désuète la war nañ ñu may bu suñu économie yi amee bonne santé ñu mën a xoolaat nag suñu suñu suñu suñu taux de change yi mën ko apprécier ndax États-Unis mu ngi koy def. États-Unis bu buggee exporter maanaam day def ba nga xam ni buy fay day wàññi dollar ba nga xam ne buy fay du fay lu bëri yow nag buy importer mu yokk dollar ba nga xam ne bu lay fay du fay lu bëri donc gis nga war nañ ñu mën a fay mais loolu li koy may am doole nag mooy leadership bi ma doon wax ci ci pays ci président yi. mais aussi may doole sa économie ba mu am doole donc loolu dafa am solo mu ne euh, question bu am important boo xam ne faaw ñu régler ko mm-hmm. bëggee envisager suñu développement donc phase yooyu da monnaie bi daf si am solo ba tax na bokk ñetti phase yi ma tolloon dafa des yeneen ñaar muy phase de maturité maintenant ak phase nag de pleine pleine croissance phase ñaari phase yooyu nag yeggaguñ fa te pour ñu yegg fa nag euh, faaw ñu am leadership ay ay président yoo xam ni ñiy jiite ñoo xam dañu am vision nga xam ni ñoom ay mandat politique nekkul li nekk seen bopp rek mooy jël seen société ndax don de soi la yóbbu ko si ay rampe yoo xam ne mooy rampe mooy rampe décollage rampe de développement. mais du yomb nag ak ñi nga xam ne moom mooy tubaab bi ndax du ñu bàyyi seen intérêt moom mooy Afrique bañ a décoller mais nag nañu gëm suñu bopp te li may wax mooy sacrifice bi également ñoo ko war a def bu ñu xool lan lañ si war a mën a am mais nañu fexee ba teg jox suñu sët. waxuma sax suñu doom parce que xëy na béy wees na mbuus waaye suñuy sët ak suñuy sëtaat vraiment ñu dund bokk développement euh, pour l'amour du ciel comme on dit voilà maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax professeur wala docteur maa ngi lay jaajëfal di Thierno Thioune di docteur en sciences économiques nekk également maître de conférence titulaire foofu si université Cheikh Anta Diop bu Dakar nekk également directeur des études du euh, CREF sans donc mel na tamit euh, xam ngeen ko miin ngeen ko si émission bu mag bi di pouvoir d'achat et on espère que également tamit euh, leeral na et que lu bare xëy na jël ngeen ko si mu doon njëriñ merci professeur ma bàyyi le mot de la fin. merci beaucoup di bigaat trop amaat contentement di teewaat si sa émission bu mag bi nga xam ni question yu intéressé population yi ndax yaa ngi joué sa rôle euh, ci yee di xamal. maanaam yi nga xam ni mooy solution yu ñu war a apporter si suñu problème yu mel ni développement problème yi nga xam ne sax problème économique interne la donc euh, émission bu am solo la may bëgg trop di kontaan lool di ko di ko partagé waat encore ak yow di nuyu internet yëpp di la jaajëfal. merci beaucoup jaajëfal leen la bu baax a baax merci beaucoup à Omar sunu caméraman et monteur également et tout toute l'équipe bi nga xam jàpp nañu si réalisation bi à très bientôt beneen numéro pouvoir d'achat